kon koo xam ne tey boo waxee kilifa réew mi dana la dégg moo xam ku ñuy diisool nga wala danga doon kilifa diine wala kilifa aada wala kilifa politik képp koo xam ne soo waxee danañ dégg sa kàddu ñooñu nañ gaaw dab dabaatal réew mi mu jël décision ci sañ-sañ yi ko réew mi jox te yàlla jox ko ko mu jëfandikoo ko musiba mii jëm si ci sun réew mi mu téye ko mu jeex li tax may wax loolu yaari mbir la menn mbir mi moo gis nan ci metotam moom njiitul réew mi ne ay musiba yu bari waaxu woon nañ jëm si ci réew mi ña ko yëg yëg nañ ko ña ko yëgul yëguñu ko waaye mu taxaw ci taxawaay boo xam ne freiné na ko ba agsi wut ñaareel ba moo di li nu gis fan yi te yëg ko ci ndawi réew mi ci fépp nag ndaw ñoo xam ne dafa mel ni amatuñ yaakaar ci seenum réew ndaw ñoo xam ne pare nañ nañ doon pare ngir war géej ga faatu ca pare nañ noonu tey pour war jéeri ji faatu ci lu mel noonu nag ku ca teg sa bët da nga yëg ne mbir mi àgg na foo xam ne mëneesatu cee noppi mëneesatu cee noppi ci képp koo xam ne xam na fitna buy tàmbalee fa muy tàmbalee ndax dañuy wax ne fitna buy ñëw te ak seegul ña yor la ñu tudde basiira muy gis bu sori ñoo koy xam waaye bu agsee rek ñëpp dañuy xam ne agsi na su boobaa ñëpp danañ ca bëgg a génn waaye xam ne fitnaa ngi ñëw moo gën a yomb xam koy jaar ba génn ca ku di laajal réew yi duggoon ci fitna boobaa ak léegi mat fukki at mënaguñ cee génn laajal waa Libi laajal waa Syrie laajal waa Yemen laajal malik yi nekk ci suñ wet la fay xew booba ba léegi kenn gisagul bunt boo xam ne fa la ñuy jaar ngir génn ci kon fitna doon na loo xam ne des koy daw wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa wattandiku leen fitna joo xam ne su dikkee du yem ca ña bu ñëwee day boole ñépp ànd loru kon loola mooy suñu kàddu fitna kat bu ñëwee du bàyyi dara du bàyyi kenn itam di dénk sama bopp di leen dénk